nekkoon nañ tey ci cadre union de la jeunesse musulmane sénégalaise muy kuréel boo xam ni ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci daaw ñuy taxawal benn concours sous régional sur le Coran ren ci kattanu yàlla waroon nekk vingt ci édition bi kuréel boobu nag amoon taxawaay doon ko waajal waajal comme ni koy waajaloon yi fi yi fi jógee yi fi jaar ci mbaaxu yàlla ak tawfiixam waaye suñ borom def ab yëngatu ci àdduna bi ba tax na kilifa yi aada yi ak kilifa yi diine yi ak kilifa yi ak docteur joxe ndigal ni nañ moytu dajaloo yi tënku ci ndigal nag dafa baax ndax suñu borom moo ñu topp leen yàlla ak yonent bi ak ñi yàlla jox kàddu ci kaw suuf loolu moo tax tënku gi ñu tënku ci ndigal moo tax ñuy sant sëriñ daara yi nga xam ni euh, ëpp nañu téeméeri daara ak juróom fukk. bi ñu xoolee esthétique yi nga xam ne mos nañoo jaar ci concours bi participer ci ci année yi passé ci biir Sénégal ak ci sous-région bi ñu xam ne ñoom ñëpp sax xam naa ne xam nañ ni ak li xew xëy na concours bi du am waaye jaaru na ñu wax ak ñoom xamal leen ni ren ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala ak li xew ci àdduna bi concours bi du mën a jàppandi loolu nag dañ koy wëlbati def ko ay ñaan kenn ku ne ñu ngi sàkku ci yow sa daara lu mu tuut nga jàng fa juróom-ñaari kaamil ajuma bi di ñëw eh, ngir yàlla delu ci wat ak dal ci aduna bi na suñu rew du senegal kuñ ci mëna jokkol nañ jokk yow waye xam nga ni ñen ñi dañu ne ci région bi ñen ñi ne ci biir senegal ñen ñi ne ci ay yu safante ko am ci ñoo xam suñu yoru seen numéro ndax dañ naan concours su musaan ubbi rek dañuy ubbi inscription yi ca euh, école fédération d' association islamique du senegal ak école Alhaji Ndiass Mbaye ci Grand Thiès xalé yi bindu fa lolé buñ ci jublu moy transparence ngir baña a xam ne sax xale yi ñew ñu bañ leena xam ñu ci ñu ci ñew rek moy daara yëpp yëg ni euh, mbir mi seen bi la kon daal daara bu dégg appel bii ñu ngi lay ñaan àjjuma ji di ñëw nga jàng juróom-ñaari kaamil yéene ko yàlla delluwaat stabilité ci suñu réew nga xam ne am ñu dul moom delluwaat ko ci àdduna bi te dàq balaa bi nga xam ne yàlla da ko fee wàcce ngir nattu jaam yi beneen bi ci deseen ñi ngi rafetlu taxawaay bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall def na ko ci muy lépp loo xam ne moyen la mu attan ko mu fas yéene ko jëflante ak askan wi jëflante xam ni man mënoon naa des ñoom di sant it xalifa généraux ci réew mi yëpp kon daal ñu ngi dellu di ñaan yàlla yàlla nag su musaan wàcc lu mel nii ci kaw suuf li ci li ciy dégle di ko ci santaane mooy tuub dellu si yàlla tuub dellu ci yàlla te ñaan yàlla ndax jullit amul dul euh, euh, euh, soo yëgee ni mbir mi ab nattu la kenn ku ne nu nga tuubal sa bopp tuubalaaleel askan wi ba ca des it ñu wëlbatiku ñaan yàlla ndax yàlla moo ne isa saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai isa yaa ne na ku ma ku ma ku may laajte daal man ku jege laa ko xam ne buñ ma ñaanee ma saafara ñaanu ñi may ñaan kon nañ maasee ñaan yàlla ndax ñaan mooy armu julit adwa silahul mu'min kon daal ñu ngi dellu di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci askan wi waaye nag ñëpp maasé di jàng alquran di tuub ndax alquran mooy téere bi nga xam ne moom mujjee wàcc jóge ci suñu borom subhanahu wa taala waaye mooy téere bi nga xam ne dafa tënk mboole seen téere yi ko jiitu waaye mooy téere boo xam ne yàlla aussi daf ñu ci joxoñ ñu gëm yonent yi nga xam jaaroon nañ fi lu jiitu alxuraanu karim kon ñu ngi delloo askan wi ci alxuraanu karim delloo leen ci ñaan delloo leen ci tuub te ñaan yàlla yàlla def jàmm ci àdduna bi def tawfeex ci àdduna bi indiwaat yëngatub àdduna ci ci dal eh, nit ñi delluwaat seen liggéey famille dellu seen stabilité xale yi dellu seen jàngu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu